maanaam dañoo nekk ci àdduna boo xam ne àdduna bi dafa ubbeeku que dafa ubbeeku léegi jëflante ak jokkalante signature yi nga xam ne convention internationale yi ñu signé nga xam ne dafa aju ci wàllu jëflante donte ñun d'accorduñ ci am na ci yoo xam ne d'accorduñ ci mais am na ci yoo xam ne mënutul mënuñ ko daw léegi day permettre ki nga xam ne nekk na Chine wala nekk na Inde wala nekk na feneen li mu liggéey moo xam ci wàllu artisanal moo xam lu mën a doon daf koy dugal ci Sénégal léegi ana ñun nan la ñu war a def est que dañoo war a continuer ci artisanal bi rek lépp nekk artisanal maanaam nga xam ne man su ma bëggee liggéey benn jaaro jaaro bi dinaa commencement début ak ba mu mu jeex lépp ci sama loxo laa koy liggéey loolu bu ñu continuer jàpp naa ne marché bi dañ koy nangu te loolu moo wane marché bijoutier importation bi ak industrie bi moo ko nangu te importation bi li ci ëpp industrie la léegi nag bu ñu amee lu mel ni nga xam ne dinañu mën a permettre ñu am ñu jóge ci euh, artisanal maanaam boole ko indi industrie nga xam ne du ñu jógee du ñu jógee ci artisanal ba mu jeex mais dañ dañ leen di boole ndax mën nañ ci def tout Sénégal loolu daf ñuy permettre si ci marché Sénégal bi ñu nangu ko nga xam ne tëgg table depuis mu commencé xeex ba léegi importation lay xeex parce que importation développé wu réew réew il faut muy euh, produit pour mën a pour mën a pour mën a am développement branche commerciale am taxaw léegi nag loolu li mu koy may mooy lu mel nii mooy ay ndawam ñu fexe tàggat leen ci àdduna bi nga xam ne dafa laaj numérique àdduna bi nga xam ne dafa laaj temps bi dafa gàtt demande bi dafa bëri léegi nag lu mel ni loolu la ñu loolu la ñu kii dinañu permettre tamit lu mel ni bijouterie ñu mën a am yeneen facette lu mel ni médailles yi lu mel ni li nga xam ne daawuñ ko mën a tëgg ci suñu loxo ñu mën ko tëgg ci machine 3 yi nga xam ne développé naa ko fii nga xam ne def naa fi benn échantillon boo xam ne benn benn médaille la bo xamné médaille ordre de mérite la nga xamné wone nañ ni lolu kat teug yi mën nañ ko défar té teug yi mënuñ ko woon défar ci seen loxo kon dama japp né atelier bi baxna ci tailleur yi parce que am na tailleur yi fi ñew def li nga xamantane yow buñ lako xol da nga xamné li euh aduna bi li la la ci walu tailleur mënu jeu métallique gis na légui ben allo buñ bind manam ci bir salle lolu nak limi wone rek moy Sénégal dafa jëm ci développement bo xamné ñun buñu adapté wu li yeneen réew yi dañuy ñëw napp nappaaju ñu te économie amul yërmande maanaam économie amul yërmande économie dafa doon loo xam ne nit ki si boppam dangay mën def soo mënul sa moroom def. def ñoo permettre ñu xam ni ñuy defee broderie numérique. musuñu ko def musuñu ko gis dañ koy dégg rek donc lim ñu defar formation bi arrangé nañu bu baax am na njëriñ te maa ngi ñaax yeneen son yeneen mbokku jigéen ñu ñëw approché wu DER dina leen permettre ñu découvrir lu bari parce que man broderie à la main lay def mais su ma gisee numérique bi daf may gën a euh, gaawloo day tax ma gën a avancé gën a def yeneen affaire baax na xanaa di leen gën a ñaax rek ñu gën ñoo accompagner rek si ay matériel ak financement pour ñu mën a parce que bu ñu defee formation ba pare dañ soxla tamit ay matériel yu ñu ci mën a appliqué woo di tax mu développé suñu liggéey tamit